dal leen ak jàmm seen seen bii di GNTV Sénégal kii di Serigne Saliou Gueye di chroniqueur yëkkati na ay kàddu daal di tontu kii di Barthélémy Dias si li mu wax ko ne bu fekkee ne kii di Amadou Ba moo uutu kii di président Macky Sall ci boppu réew mi kii di président Ousmane Sonko ci kaso bi lay dee si li ni mel lu kii di Serigne Salif Gueye xamaloon Sénégalais mooy que ne kii di Barthélémy Dias day wax ko ne kii di xalifa Sall moom mooy mantooram ci élection présidentielle 2024 ñi jëm waaye ne en réalité kii di Barthélémy Dias lenn rek moom moo ko préoccupé te moom mooy candidaturam bu mu war a amal ci élection présidentielle 2029 yi ñu jëm ne kii di Barthélémy Dias même xalifa Sall mi nga xam ne ne moom mooy mentoram bi taxawu kookee en réalité jéem a koo épaulé te ne li ni mel lu koy firndeel mooy que ne ginnaaw ba kii di xalifa Sall demoo ci biir diaspora bi di jéem a dàggan seen kàddu ngir ñu daal di koy voteel ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm ne si li ni mel fii la Barthélémy Dias daal di toll di wax que ne diaspora bi amuñ benn pois électoral ci réew mii di Sénégal te ne loolee ba ko Barthélémy Dias di amal mu ci doon ut moo doon jéem a jaxase kii di xalifa Sall ak waa diaspora bi. ne jëf joojee nag tey wane que ne kii di Barthélémy Dias moom ci wàllu boppam respecté wul wegul kii di xalifa Sall bi nga xam ne ne moom lay wax ne moom mooy mentoram ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm. ginnaaw loolee kii di Serigne Sall di wuyal ne kii di Barthélémy Dias waxtu bu ñuy wax nii dafa dee politiquement ci réew mi di Sénégal te loolee firnde bi moo ngi suñ kanam ndax ne buñ amalaatee élection locale 2027. bés bu si Barthélémy Dias présenté woo dina xam que ne sénégale yi génn nañ ci moom boddi nañ ko bàyyi nañ ko bu yàgg waaye tamit ne kii di Barthélémy Dias xam na bu baax que ne kii di président Ousmane Sonko moom moo ko fal ci biir maire bu Dakar donc bu nekkee di tiire ci moom daa xam que ne instant bii nii dañ ko koo ko politiquement loolee rek moom moo tax. ne en réalité lu tax a jóg kii di Barthélémy Dias du xalifa Sall du Ousmane Sonko du benn politicien moom mooy ni muy fexee ba récupérer parti bii di taxawu daal di fay nekk leader daal di bokk ci élection présidentielle deux mille vingt neuf yi ñu jëm ne loolee rek moom moo tax muy wax di classe bépp politicien ci réew mi di Sénégal.